aleykum wa rahmatullah wa rahmatullahi taala wa barakatuhu day nekk kàddu gu gàtt rek ndax dafa melne da ngeen ñew fi indi fi sen bop fekk fi sen bop ndax kan ngeen fi fekk Cheikh saidi mohammed mustafa ngi ko ben wax bu sama Abdou wax ci mom bes bi nga xamé ni mi ngi war wuy ji boroomam muy bés waa ba mi ngi dora dok señ Mansour nga taxaw señ abdo nga taxaw man mi ma nga taxaw pour wax len rek place historique bi ngeen ñew sëñ Mansour wax ni kenn xalaatul feneen fu dul ñu denc ka fa sëñ Abdou ni tey ñu laaj xale yi booba temps xale yi man maa fa taxawoon ñun ñett rekk la ñu woon sëñ su laaj ma man dem man yi su doon sama sago ñu denc ko Dakar sanya abdu ni ma fan si Dakar manika ni ko ga ma ga am na fun fa fun ko denc manika amna ko fun ko denc moo tax ngi hésité xalaatoon na fi ko denc xalaat sanya Abdou dadi wax ni man ñun doon sob sax tey ñu laaj sanya Abdou bu mak si da sanya Abdou wacce dem si ben negu infirmière wo sama Abdou ni ko xale yi lii la ñu wax sama Abdou ni d'accord naa seeg xale yi sama Abdou départ Tiwaawoon ñëw fii bi mu ñëwee chaise bi mu toog mën maa ko yëkkati jox ko mu toog mu ni alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulilah rabil alamin bi nga xamee nii sama xalaat dëppoon nag li xale yi xalaat ndax Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha cëru dakaar la ndax bi mu laajee sëñ Babacar bi mu nekk Thiès mu ni dafa jege ba mu ëpp comme ni nga ko nettalee mu nit ndar mu ni def ma sore ba mu ëpp mu ni ko Dakar mu ni ko dafa am lu fay liggéey te pareegu ma sëñ Hadj Malick mooy wax de mu ni ko Rufisque mu ni ko waaw waaw waaw Rufisque baax na kon sama abdu bi mu ñëwee fii daan ni sëñ Moustapha cëru Dakar la cër la bu nga xam ne bii kan moo ko séddee muy maamam Seydi Hadj Malick ñu nekk nag ci jamono ju nga xam ne bii ñu ngi seetaat jaar jaaru jaar jaaru mag ñi waaye kan la ñuy seet jaar jaaram ki nga xam ne ñun ñëpp moom la ñu mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fexe ba dugal cofeel su sunu xol ñu nekk ci rabiul awal bi nu jëm nii muy rabiul awal rabiul awal shahru xayr wal baraka wal yumn الشهر الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم weeru yiw la weeru barke la waaw ku ko xam ni topp nga ko rek lu nekk mën nga ko si am si la yonent bi nag judd waaw yonent bi rabiul awal la juddu bi mu juddoo maamam abi aba talib wala abdou moutalib daf ko jël ñëw tawaaf kaaba gi tawaf tawaf bi mu e ba pare ko Muhammad Wa Quraysh ni ka Muhammad ñun amunu habitude di tuddee tur wo suñu ay dom. mu ni ka dama bëgg ñëpp sant ko ñi nekk ci kaw asaman sant ko ñi nekk ci kaw suuf sant ko jinne sant ka doomu adama sant ko indi fi ben ada bo xandi bi moy ada gàmmu du bes bi yonent bi juddu rek de mo wa ala azimu layla wiladati hizbatan iza lam yakun naxwal xaraami oduulo waaye ñun dunu gàmmu rek Ils ont xam nga euh, catholique suñ Noël 24 décembre par exemple waye ñum année bi tous les samedis tous les vendredis tous les goudi tous les dimanches mën nañu tenter ni dañuy màggal yonent bi kenn du ñu duut baaraam waaw ndax si Hajj Mari moo nu ko fàggul donc toute l'année ñi ngi def lii ngeen di def si si Hajj Mari ñi ngi topp jaar jaaru yonent bi waaw di roy ay jikoom si téere bu nga xam ne bi ñu naan ko xilaasu dahab néew na bind si yonent bi comme ni El Hadj bindee si yonent bi jaar-jaar yooyu nag moom la kër gi dem naan kër gi dafa saf yàlla kër Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha bii ngeen ñëw tey dafa saf yàlla ndax daara ji tey alxemes la xale yi dem nanu mais su ngeen gisoon ñëwoon neuf cinquante xale di jàng alxuraan seede léegi ñu jàkkee laayeen bañ fa demee imam ba dafa def témoignage ci kër gi allahu akbar tam fii la ñuy jàngee ngir naw mu naw kër gi ci wàllu xam-xam wallahi 45 ya, pour cent xale yi jàngee fii si daara ji ay murid lañu ay daara murid yu bare ñu ngi si koñ bi waaye ñoom xam na ni fii caaxaan amu ñoom ñëpp kër gi lañu kër gi lañu wóoru pour que ñu former leen seen doom formation bu nga xam bi tabax nañu jàkka ji incha allah euh, balaa balaa balaa yàgg daanu tabax institut bi xalé yi ji jóge fii ñu former leen dans l'enseignement public ba 6e sixième suñu 6e au moins dans mokkal ba suratu yasin xalé yi jànge fi amna ñu nekk en 4e année de médecine ay jigéen mokkal alcorane amna ñu nek en troisième année de PC di gën jafe mokkal alcorane té ay jigéen la ñu bëggoon nak créer ben école comme les écoles catholiques école bu nga xam bi ñun débat bi xew temps yi ñun itteeluñu man la question que je me pose nan la jullit di ñaka fay la ah ba enseignement catholique gën enseignement ba ñuy jël sen doom enseignement est-ce que nous mën la même chose ah, man que lool moy sama intention tabax nañu jaaka ji deuxième phase bi moy tabax ben instrument ba en sixième ndax entrée en 6ème, vous ba sax ah ba entrée en sixième xalé yi dañ leen au moins dans mokkal euh, ba suratu Yaasin ñun intention waaw dafa mel na dañu dox daje da ngeen ñëw fi indi fi seen bopp comme ni mu ko waxee sëñ Abada ñu ñëw fekk fi seen bopp ndax kii tëdd fii si xaj si xaj Malick moo moo wax ni jagle Dakar la sama Abdou bi mu ñëwee di que jébbal boroomam loolu la wax ni kii Dakar ak moom moo tax sëñ Cheikh Ahmed Tidiane ni comme suul nañu sëñ Moustapha Dakar léegi ko amati sa néew mën nga ko sul Dakar c'est pas la peine nga koy yóbbu nga ko yóbbu waaw wax affaire lay dama dem bu séminaire international en Mauritanie si l'enseignement classique l'enseignement traditionnel at atiq et rôle de enseignement atiq l'enseignement classique joué pour la diffusion du savoir et le maintien de la paix dans ce pays doon nekk Sénégal bu nga xam ni dafa jaxasoo nit ku nekk dangay nekk rek si réseaux sociaux yi def sa ay nu koy waxe sa ay live lu la neex nga wax dafa mel ne Sénégal tey la commencé dafa mel ne mag ñi liggéeyun fi dara waaw ku ne di wax waaye li nga xam ni moo wóor mooy lii dama ni man daan ma dégg su lu sama xel dafa sopp loolu laa mës mel lu ne dugg naa si waaye ku dugg si gis neuf cent cinquante xale yi ñi jàng alxuraan nga dégg seen fasaaxa nga dégg fi ñuy tibbee waaw li wolof sa sa man ku ñëw fii dugg si gis xale yi daa xam ni wàccuma sama ànd waaw te loolu rek mooy li nga am solo ñu bàyyi fi nag euh, fekk fi noney góor gi muy noney bu yaatu noney bu jógee sëñ Babacar ba tàbbi si ay loxoom bi mu demee mu tàbbi sama ay loxoom bi mu jógee bi mu fi jógee ba tey am na fanweeri at si biir suuf ñu ngi fi nekk dundal daara ji lii rek mooy li gën a am important damay wax ñoom Ahmeda bi góor gi génnee àdduna ba tey li ma gën réaliser sama dund te moom xam na ma bu baax a baax. li ma gën réaliser sama dund mooy daara ci waaw ndax alxuraan moo jiitu waaw soo fexee ba xale yi jàng alxuraan surtout vacances yi damay dox si mbedd mi gis xale yi di daw di dàqan daan te mënoon leen jël indi leen fii mu am lu jiitu si ñoom parce que xale yi jàng fii ñoo raw seen ay waajur ñi si ëpp suñ demee kër ga ñoo jule ñoo jiite timis ñoo jiite gee ñun nag cër boobu la ñu yàlla la ñu yàlla sedde ak sunu ay faiblesse d'homme ñi ngi essayer di soox di si dem di contane ñëw bi ngeen ñëw fi waaye yal na yàlla këlëbu mm-hmm. Dakar yi waaw Mbaye de président daayira Asfiya. Asfiya waaw Mbaye waaw maa sa waaw. Adja Aïssatou Diagne la président suñu association bi Jamaatu Malike la tudd. Aïssatou Diagne. nekk am taxawaay ci xadara bi. jërëjëf socialiste. ah waaw waaw gérer les cadres de la partie socialiste. Hmm. waaw donc mu nekk ku am taxawaay. Hmm. Adja Marie Pierre Paye yaram bay diis moo tax ñëwul daaw ñoo ko ànd. waaw waaw waaw. bu ñu jógee fii dañuy dem juma mosquée Cheikh Mohamed Saïd Ba. xanaa sëriñ bi dina àbb bu <laughs> mm-hmm. fekkee mën fa fekk jëmbal fa mm-hmm. <laughs> ngeen fii rek doy na wallaay wax dëgg ngi eh, nuyu jigéen yi bu baax a baax ah, ah. euh, association Sopp Boy Ablaye Mbodj. Mm. président bi ñu ay jeunes yu dynamique. Mm-hmm. chaque chaque euh, kii li ñu koy xatee date bi 31 décembre gis nga ni ñu ko defee 15 août bi gis nga ñu ñu instauré ci lii. waaw waaw am lu ñu mm. ñoom dañ ci instauré gàmm bu mag ngir am loo xam ne tere nit ñi ñu soxla di dem ci bistro yi. waaw waaw yooyu yëpp ñu jigéen ñi ngi leen di ñu ngi leen di sant. nous somp la parité. Mm-hmm. Euh, loog lu ngeen initier rek mu am parité bu mel nii euh, day dalal suñu xel waaw kon nag yal na yàlla euh, yal na yàlla dimbali leen kàttanal leen yàlla nag mën na ko yal na ko def kàddu yoo rek laa waxoon naa ko barkeelu si seen mubaadara bi si seen initiative jërëjëf.